yëpp di leen mhm. masawu tiis bi nga xam ne moo dara doo suñu kaw mhm. ak naqar bu rëy naqaru xol bi nga mhm. xam ne moom la nit ñi fanaane di ko yendoo depuis une semaine ndax euh, ku bon kooku bi am na si waaw sëñ Adama euh, ci loolu la parce que Sénégal gi yëpp am nañu naqar diine islam aussi am nañu naqar parce que ba ñu nekk bitim réew sax dañuy woon naan Sénégal naka la ñu mën a seetaanee lii euh, waaw ànd sàmm jikko yi ñëpp xam nañ ne dafay xeex li nga xamante ne mooy euh, valeur yi. ngir ñu mën a am valeur Sénégal di xeex lu bon. ànd sàmm jikko yi bi ngeen déggee kàddu Cheikh Ahmed Cissé yan taxawaay ngeen ci am. ànd sàmm jikko yi. ba ñuy jóg ci Cheikh Ahmed Cissé kenn jógagul. Hmm. ndax bu ñu fàtte ni li tubaab naan multirécidiviste la. absolument. maanaam li doorewu ko. te xam hmm. naa du ko du ko mujjee du ko mujjee fekk fajuñu ko faj bu metti hmm. moo di génn na fi def boo xam ne pornographie lañ def allo allo site boo xam ne pornographie rek lañ mhm. fay wax mhm. ak lu bon mhm. loolu taxoon ñu jóg mu boole koog nag ni léegi préservatif yi euh, maanaam dañ ko war di distribuer ci jàkka ji subhanallah ci jumaa yi lu doy waar waaw moom xeeb na loolu yëpp ni nag sax di félicité am na ci vidéo boo day félicité góor jigéenu Sénégal mhm. ak di leen encouragé mhm. di leen kilifa ànd sàmm jikko yi li ànd sàmm jikko yi waaye ñi nga xam ne ñooy démembrement am mooy ku mel ni comité de défense valeur morale ak Jamra nga xam ay membre ànd sàmm jikko la ci lañ porté plainte ba ñu teg ko loxo mhm. bañ ko teg loxo nag muy saraxu yónnee baayam yónnee ndijaayam yónnee ku ne mhm. ñu ne ko ñun duñu bàyyi dañoo waroon a waxam moom ba muy wax toj tojje mhm. muy def pression ci ay kilifa ba kilifay yi def pression ca juge ba juge ba ni kon bàyyi ndege ni ko la koy bàyyi liberté conditionnelle mhm. liberté conditionnelle boobu ci la ne ba génn daal di saaga alquran saaga sunu borom maanaam saaga umma umma islamique yëpp la saaga te dañu ni lu li Salman Rushdie defoon ba tax ñu doon ko wajaray fan yee mhm. addina bi yëpp jóg euh, déclaré ko jihad lu ko gën graaw la la Amath Cissé wax mhm. doy war sax Sénégal yëpp war nañ ci jóg ndax li tax ñu war cee jóg mhm. war nañ ci jóg façon jóg boo xam ne ba abadan képp ko xalaatate même boo dee kilifaak loo mën a doon ko xalaatate di fontoo sunu borom wala di fontoo alquran doo doo ko ñemee def fii ci Sénégal léegi nag ñu bindoon plainte déposé ko ca procureur tey ci suba ci jiitu Matar Sarr ak collectif Aar Daara léegi nag bañ ko déposé ci procureur déposé nañ koy direction de la cybercriminalité hmm, kon tey déposé ngeen plainte contre Ahmed Cissé ñaari plainte lañ déposé hmm. léegi nag di woo procureur mu jël ay responsabilités hmm. ndax nit mënul saaga yàlla saaga alquran saaga diine gi saaga sénégalais yëpp lu mat une semaine a ngi nii muy dox ay soxlaam librement mhm, bu ko neex loolu tey boo boo saaga woon kilifa dëkk bi mhm. wala nga wax ci moom safaan doo yendu de balaa balaa balaa balaa ngaa daane ñë mhm. nag loolu googu moom du complet dina jël responsabilité mhm. am na ñoo xam nag nee na bu ko jëlul yoon moom dafa war a def liggéeyam ndax bu dul ñu organise dafa am pare pare seen bakkan pare nañoo faat ñu dajeeg moom mhm. loolu ku ne dégg na ko bëri nañu ko wax kon nag loolu buñ ci yeggee mhm. défaillance su état la ak échec état ndax état mu waroon ba mu ko waxee rek mu dem jëli ko naqar googu nag la nit am ba yaakaar ne nag léegi di laajte ndax état léegi moom daf fay nekk daal di seetaan yenn yi ñuy offensé jullit yi mhm. di leen saaga mhm. waaye yeneen responsabilité bu mag bi mooy complice yi nga xam ne ñooy lobby yi ne ci ginnaawam mhm. di ko encouragé waaye tamit di ko ubbil média di ko fa defal ay plateau spécial absolument ba mu génnee prison ci toj tojom boobu mu def chaîne yi fi a mag télévision invité nañ mhm. fa émission deux heures de temps muy wax lu ko neex muy wax lu ko neex hmm? loolu ñooñu na l'islam bàyyi leen xel ak jullit yi mais mais aussi Adama Adama est-ce que est-ce que aussi responsable bi bokkul ci site internet yeeg ak yenn télé yi immature yi ah, yu koy yu koy tàllal micro parce que ñoom tout le temps dañ koy tàllal micro muy wax lu ko neex ñoo ko encouragé man damaa mujj ni ñooñu tamit lobby yay financé ñiy saaga diine mhm. damaa defe ni ñoom it dañoo dañoo ànd ak ñooñu mhm. ndax tey jii am na loxoor boo xam ne booy def émission boo ko waxoon ci président mhm. wala nga wax ko ci borom site ba dañ koy censuré du génn absolument waaw mu bàyyi ba ñoo ñëpp saaga sunu borom nga bàyyi mu génn nga bàyyi mu génn kon ça veut dire que yow euh, co responsable nga mais mais mais Adama Adama. waaw euh, may rappelé maa ngi Adama bu ànd sàmm jiko yi ah euh, Adama euh, mais dañu gis ne Ahmed Cissé est-ce que est-ce que Ahmed Cissé ne ci ginnaawam. mooy. Mhm. pour sañ a def lu toll nii. waaw. ba pare libre waaye ba nga génnee sax. Mhm. na ko. Mhm. defal ko fa plateau. dégg nga nga sañ a saaga yàlla saaga jullit yëpp presque une semaine ngay doxantu librement kenn defu la dara moo lépp yaa ngi ci ginnaaw hmm, léegi nag gis nga yàllaa ñu dimbali sax hmm. ba lii mu wax ko en waaye gis ga bu ko waxoon ci français wala mu wax ko ci anglais ah. kon heure bi drapeau Sénégal ñu ngi koy taal partout en ci monde bi. absolument kaddu kaddu yu garaaw na na de kaddu yu na lool sax Ahmed Cissé li mu def moo gën a garaaw la alxuraan. Mm-hmm. waaw kon tey jii loolu rek menace bu mag no paix sociale ak stabilité dëkk bi. absolument boobaa di nga gis ñoo am dinañ ñëw ba wi pour fajal ko seen bopp. Mm-hmm. ba pare jaare fa image Sénégal yàqu ndax tey jii lu wax Suède fa la. réseau bi ko réseau bi buñ buñ ko mënee buñ ko mënee jëlaat ci ci ci bi parce que li mu li mu am am ñoom war na leeral lu bëri euh, moom moom Adama Mboup ah bu fekkee mën nañ ko mën ko mën nañ ko jëlaat ci ligne bi ñu jëlaat ko ci liñ bi parce que wax ji euh, fa mu egg foo wax ji egg parce que ñoom ànd sàmm jikko yi may wax ne ànd sàmm jikko yi euh, romb na plus de cent association islamiques yu ànd moo formé ànd sàmm jikko yi nekk ci 45 départements yi aussi bu Sénégal Jamra mi ngay gis nii ci ànd sàmm jikko koy la bokk pour ñi ko xamul kon tey jii jàpp naa ne euh, kilifa dina yi ñëpp ñu ci bëri jóg nañu taxaw wax parce que lii Sénégal est-ce que xam nañ gravité bii waa ji def nii Sénégal Adama bu mu ngi koy rappelé bu dee mais Ahmed Cissé li muy wax nii boo ko waxoon en français war na yàlla kon drapeau Sénégal ñu ngi koy taal ci yéen dëkk naare boo ko waxoon en anglais. kon drapo Sénégal ñu ngi koy taal ci dëkk yi te gravité bi mooy procureur warul woon sax xaar ñuy plainte Ahmed Cissé parce que am na kàddu yoon boo ko yëkkatee teg ko ci teg ko ci njiitu réew mi mais doo yendu sa kër doo yendu sa kër ah euh, sëñ Adama. waaw. waaw euh, am am am na fu ñu tolloon léegi dama bëgg a laaj. Euh, waaw ah, Cheikh Ahmed Cissé mii ak wax ju réyam ji mu wax. waaw génn na vidéo ne day jéggalu. waaw waaw ba ba ba nga baal ma ci kàddu gi yéen naa feq yu bëri naan noo est-ce que duñ ko jéggal ak est-ce que duñ ko nàngam est-ce que ku ñu war a jéggal la xam nga ñoom léegi dañu comprendre loolu mhm. Sénégal da ngay gis koo xam day def toj toj bu rëy ne naa ko def ndax bu ma ko defee lobby franc-maçon yi mhm. ak lobby yu bon yi danañ ma may visa te dinañ ma dinañ ma may xaalis mhm. léegi nag jaral na ko ñu def ko ba pare nag wobati ko xap xapal bët daa di jégg leen ndax danga naan Sénégal dañoo bari sentiment lu la neex saaga fi yàlla mhm. saaga fi yeneen saaga diine nit ñi mhm. waaye boo boo wobati ko rek débbalu ñoom dañoo bari sentiment mhm. waaye moom day nit koo xam ni yàgg naa jéggalu te fu mu jéggaloo delluwaat waaye di wone ni dof doful dina jàpp ko mooy kaw sëriñu Kaolack boobu mu saaga woon ba ñu duma ko fa léegi ba léegi eh, kuy interview boo ko nee mbirum euh, Kaolack moomu danaa la noo loolu buñ ci wax. du ma wax. kon daful dina jàpp ko. waaye gi nga fi mu ne nii li mu wax moo gën a garaaw. Mhm. daam moom li mu wax nii nee na alquran képp lu ci nekk du dëgg. ay caaxaan la. Mhm. loolu ba mu wane na ni Serigne Touba ak El Hadj Malick ak euh, Koukounta ñëpp li ñu nekkoon dara du ci dëgg moom message bi loolu la bëgg a wax. absolument doy na waar maanaam ñi deru ñoo topp ndax li ñu doon topp dara du ci dëgg. doy na waar. waaw kon kay ñëpp la offensé. lu toll kon wax na wax na lu gën a garaaw. sànq sëriñ daal sa sëriñ doon yàlla suñu ne day lépp. jeexal ci dundam yëpp nga ne nga nga ne ay caaxaan. Mm-hmm. donc ñëpp la saaga. comme lañu ñu wax nag tey jii ka lakkoon kaamil ba. Mm-hmm. te suet ba léegi kenn xamul turam. Mm-hmm. waa Suède dañoo lakk waa Kaamil rek ngay dégg. absolument léegi tamit bu doon kii day yàq dafa yàq na image yu Sénégal. Mm-hmm. ndax fi mu nekk ni ñi ñi liñ nar a mooy waa Sénégal dañuy saaga yàlla di saaga la ah doy na waar. kon nag na ci teg seen bakkan. Mm-hmm. bu dee procureur réglé na ko. pour éviter risque de trouble à l'ordre public. loolu la ñuy xaar ci moom loolu la ñuy xaar ci état. ok wax buñ ko réglé wul nit ñi dinañ ci teg seen bakkan réglé ko seen bopp. te loolu nag défaillance su état la. ok te nit ñi dinañ fa jaaree xam ni état bi nekkalu leen fi. waaye day protéger ñi nga xam ne ñu ngi xeex diine bu boobaa tamit nit ñi dañ leen sanctionné. Mhm. lépp lu ñu xaarati ñoom ñuy sanctionné leen. loolu mhm. nag baaxul. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon kon daal plainte bi dugg na. Euh, jamono ah, ji ñu wax ak yéen nii plainte bi dugg na te te am yéen si plainte bi ngeen di yem wala dafa am yeneen jéego yoo leen di yoo leen ci dox tey jii war nañu réunion ak euh, kilifa diine yu bëri ak association ak ustaas yu bëri mhm. pour seet yeneen jéego yi ñuy teg mhm. waaye jéego yi du du du fi yem Sénégal yëpp dinañ ko yëngal absolument bu ñu tegul loxo Amath Cissé mhm. Sénégal dina yëngu-yëngu bu mos ko yëngu ah kii kay procureur sax warul xaar warul xaar jërëjëf ah, warul woon xaar nag